salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku Sénégal mbokku internet yi waaye plus particulièrement commune ji de Thiaroye Kaw bi nga xamante ne tey fii la Yaye Dia Agro ubbi tey nag ñu jóg def benn déplacement bu am solo seet ñi nga xamante ni ñooy booleem koo xamante ni rek bénéficié wu nga ci dimbal gi nga xamante ne Yaye Dia Agro mi ngi koy taxawee ci biir gox bi waaye ma salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sam maa ngi lay nuyu di la ziar moo tax tey dañoo seet si benn euh, boo xam ne dafa adhéré ci Yaye Dia Agro ñu jox ko congélateur mm-hmm. mu di ci liggéey ñu naan ko maire Euh, Aminata Koulibaly mu ngi dëkk fii ci Médinatou Mounawara tey moom la ñu seet si. accompagnement bi nan nga ko sentir ak nan la mel ci yow ak ban yëg-yëg nga ci am. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen tamit di leen sant di kontaan tam ci ñëw fekk si di ngeen ma fekk fii sama gox di ma laaj ci Yaa Agro dama ciy sawar. bi ma ubbee ba nëgë ni ñun dañ cee gis suñu bopp ndax fi ma jëkkee ñëw ci Yaa Dia Agro daf ma jox ceeb jox ma dëwlin jox ma kaani jox ma poobar. jox ma soble jox ma Kid Magic ma rek teg ko ci sama kër su ma xëyee balaa maa génn kër gi nattal sama goro mu togg ma dem jaayi ndax dama daan jaayi ba wàcc su ma ñëwee calculer li ma yor ñu dem ca bitig ba jënd ceeb jënd dëwlin jënd li ci war a ànd yëpp taal. ba ma ko yaajaal defalee ba nëgë ni nag dama cee am ndax ndaxte la ma daan def benn léegi ñaar laa koy def ndax boo ma saan a sóor kilo sa doole mënu ko ci kilo ba ngay yem. léegi damaa riig sama saaku ceeb riig sama dëwlin riig li ci war a ànd yëpp su ma xëyee damay def kilo dolli genn waa liibar mbaa liibar gan dootuma bett ci njël congélateur yi njëriñ la ca nekk moo bari li yaay ja agro suma man du ma ko jëlee congélateur ci weeru kool daanaka mën naa ne ni li manqué fay bi mat bari tabaski gi nag moom rawatina tabaski kër yaay ja agro congélateur manqué bénéfice wu cent mille francs ci ndox mu sedd bu ma doon jaay ndox moo xam damay dugal dem jaayi marché ci ndox mi rek am naa ci cent mille franc ci congélateur bi wax dëgg yàlla kër yaay jàggoroo njariñ kese la ma njariñ kese laa ci gis ndax boo ñëwee ci ravitaillement bi am na njariñ nga ñëw ci ceeb ak dëwlin saabu omo eau de javel lépp daal njariñ la wax dëgg yàlla ñu ànd ci nag ak madame Guèye mu ne ñu nag taxawaguma ndax man tanki kanam laa am awma yu gannaaw fii laa déparé mais damay dem lu waay soxla ci jigéen di ko soxla ci biir këram rek dinaa ci taxaw te li mu waxoon def na ko may dem ci Yaya Agro muy jeex may jëlaat muy jeex may jëlaat ba Yaya Agro wàcce ay frigo wàcce ay congélateur wàcce ay télé wàcce eh, eh, li ñuy togge ci wàññi cuisinière nee ñu nag képp ku soxla tamit ci sa biir kër nga ñëw jël ku ko sa doole attan te fay bi du metti te new ma leen ñu teg ci benn intérêt buy sonal jigéen ndax damaa jóg pour jàppale sama borom kër te muy dëgg nag dañoo àndoon ak borom këram muy Mamadou Gueye ñun moom rek lañ toppoon topp ñu kenn moom lañ gis te ba tey moom lañ topp muy ànd ak ñun di ñu jàppale liñ naan nag daanu dajul suuf dëgg la daanu dajul suuf waaye ku ci ne gis nga sa bopp ci Modou Gueye kenn du ko waat fii ci Djidda Thiaroye Kaw jabaram ñëw nag nee nag man du ma politique waaye comme sama jëkkër day politique fas yéene naa teg sama tànk pour jàppale sama borom kër te muy dëgg def na li mu war a def madame Gueye dafa ñëw jàppale borom këram barki yonente bi ba mu njëkkee jël sama frigo bi bu ngeen paree ma ubbi ko ngeen xam ne maa ngi liggéey ma madame Guèye ma ñëw mu ne ma loo bëgg ci bitig bi jëlal ma ne ko man frigo rek laa bëgg am naa frigo mais frigo bi ma am dama ci doon jaay glace bi ci comme tabaski bi jotee ma def ci sama ndawal léeg mu yàq ndawal bi ndax day ànd ak moom xeeñ doo ko mën a jaay te glace ku ne xam na ne àndul ak ndawal ma def frigo bi bu ngeen sama ndawalu tabaski ci laa ko def ma jël yi ma war di xëy di gàddu sama glacière bi ko jaay ma def ko ci frigo bi ma madame ngay jox ba léegi sax dañ koo xam ba yàlla def na tey dematuma fii ma toog fi laay toog nit ñi di ñëw di ma fi fekk si kon loolu la ma Yaye Dia Agro defal te des. asalaamaaleykum waaye Yaye Dia Agro man Soukey Touré maa ngi leen nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi madame Guèye Fatou Faye ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaare di nuyu tamit euh, bépp employeur bu nekk ci biir Yaay Ja Agro ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax tamit seen liggéey bu baax a baax parce que doo ñëwee ci bureau Yaay Ja Agro danañ la teeru danañ la accueillir dinañ waxtaan ak yow dinañ la dalal dinañ tax ak yow dinañ reetaan ak yow te duñ la woon benn kanam bu bu ñagas boo xamante ne day tax bu ëllëgee nga ragal faa dellu si wax dëgg yàlla ñëw naa fa financé nañ Faat Faye mën naa ne du tey lan soog liggéey yàgg nañu liggéey depuis 2007 lan commencé liggéey mais comme da ngeen ñoo fekk si liggéey tamit ñëw bu bett ñu tamit ñu wax li nga xamante ne moom lañ xam ci moom ah financement yaay ja agro li ma ci gis ci loo xamante ni mu nekk loo xamante ni lu gën la ci doomu aadama yi mooy que ni amul intérêt amul caution mën naa ni amul benn banque buy def loolu booy ñëw ubbi compte 4000 francs ak ñaari photo ñu financé la loo xamante ni ama day jege 500000 francs te amuloo benn intérêt boo ciy teg. wala dara te loolu. loolu tamit wax dëgg yàlla lu lu mën a dimbali. des na kon man xaw ma ku gisul boppam ci Yaga Agro waaye man gis naa ci sama bopp te ñama fa yóbbu woon ñëpp gis nañ ci seen bopp. benn ngi nii ci rubi saw mi ngi nii sama seede la dama ko yóbbu ci yaajaa agro mënatu koo bàyyi ci lay dem Xadi Njaay mii toog doomam dama ko yóbbu ci yaajaa agro ba nare ni ñu ngi continuer jël bàyyeegul ak ñi waroon a ñëw nag te ñëwaguñu affaire bi dafa teel mais ñoom ñëpp ñu ngi ci biir yaajaa agro kii mooy maire Macky di suñu responsable fii ci Jidda Caaroy kaw muy maire Macky ñoom ñëpp madame Guèye recevoir naa leen xam nañu li nekk ci bitik bu yaajaa agro département Pikine Sénégal ak Jidda Caaroy kaw def lu baax dox lu baax wax lu baax kooku dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk xol bu mu yor yàlla na ko yàlla yokk ñëpp gis ci seen bopp wax dëgg yàlla man su ma gën bu jàkkaaral ak man boro la may wax loolu sant yàlla la pourtant Lamsaar ak Touba Pikine benn la waaye xamante wuñu woon waaye yàlla moo Modou moo tax nga xamante yàlla présent président Macky moo tax nga xamante di ñaan yàlla suñu borom yàlla na law yàlla na law ba law law law ba président Modou Gueye nekk président yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon yaa jaa agro ñun dañ cee sant yàlla tumaane te bi ñu ñëwee tam dañ faa fekk équipe bu jarafe ndax nag ñun amuñu ay doole te jigéen lañ te ku amoon doole da dem ci magasin ba nga taxaw jënd li nga soxla teg ko sa saret mu andil la ko mais mënuñu ko dañ doon def marché noir di jënd di dem di ñëw li ñu tolloo te balaa ñu koo jënd dañuy jaay ba wàcc te loolu yëpp dañ na tey ndax madame Gueye moo ko fi jëlee ñu ñëw nag ngeen yaatal ndax bu ngeen yóbbu woon suñu fit kon du ñu ñame ndax ku ne xam na ne banque boo fa taxawee xam nga ni muy demee ñu la financé xam nga ni ñu koy fayee doo toog doo taxaw mais madame Gueye daf leen naan jox leen te ku jël li ma ci gën a neex mooy dañ lay laaj nan ko mën a fayee loolu fu nan nga ko mun a am faye fu mu am. kon daal su ma juumul daal su ma la déggee mooy projet bi maanaam bulet Sénégal ak li ko wër mu soog a gis projet bu mel nii. ñoo koy doog a gis ñun de ñoo ngi koy doog a gis jidda kaw ba mu ñun ñoo ngi koy doog gis. ci madame. nga sant yàlla rek xam naa ne bañ koo bañ ci duggee ba nëgën ñoo ngi liggéey loo xamante ne nag neex na ci ñun ndax lañoo jaboot jaboot ku ko jàppale sant rek. ndax ñi ñuy dimbalee nii ñoo ngi jaay léegi ceeb ñoo ngi jaay meew ñoo ngi jaay diwlin ñoo ngi jaay lépp sant nañ ci yàlla bu baax dëgg yàlla jàppale nañu jigéen ñi lool jàppale nañu lool gis nga ma ni bu ma xëyee suba teel mooy génnee sama ceeb di jaay sama diwlin sama kaani bu sew sama taabale gi suukar lépp maa koy jaay te ne amuñu benn coono léegi sant nañ daal ñun ñun man ndax dëgg yàlla dama ko gisee xaw ma na ko ñëpp gisee ndéet waaye man sant naa ci yàlla ci madame Gueye lañ ko gisee moo ko fi indi tey yàlla na jëm kanam hmm. yàlla na ko yàlla may nu mu ko continuer hmm. te li mu mëbat dina ko wax toujours te xam naa ci tànk yooyu la taxaw partenaires yi muy wëti yëpp pour ñun ñoo tax ndax bu doon moom boppam rek la kon mu tëdd këram kon yàlla ko ci yàlla jàppale ñun gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax a baax conseil bi ma leen di jox mooy ñu daw ñëw fekk si Yadia Agro ndax yaa jaa agro jigéen ñëpp la fi nekkal léegi du national international la yaa jaa agro international la Sénégal njaay wërngal këpp amul ku xamul yaa jaa agro ñi ubbi woon ñu ngi profité jeexal dem jëliwaat bi yaa jaa ubbee ak léegi ku ne xam na ne yàggul mais nit te jeexal na fi cinq fois demaat di jëli ndax neex bu mu neex ak yomb gu mu yomb kon damay woo sama moroomu jigéen ñi ak fu ñu mënti nekk ne ku nekk daw te xam ne lépp lu jigéen bi soxla ci biir këram yaa agro mi ngi ko teg di leen xaar lu ma taqale def ko sama biir Modou Gueye moo ma njëkk a may tonu ciment ne ma defaral Modou Gueye moo ma njëkk a wàccee fii sama buntu kër tonu ciment ne ma liggéeyal barke yonante bi kon bu yaa jaa agro ñëwee di jàppale Modou Gueye ñun dañuy am ne ni lu ñu mën a teg di ko denc téeméer bu ñu am 300 yi ñu ngi ko dugal ci pot di wut lu ñu dajale te loolu mënuñu ko woon am ndax lu ñu mosaan a am dañ koy lekk kon yaa jaa agro dañoo bëgg rek comme ni mu yaatoo nii mu gën a jëm ci kanam. su fekkee waa Fatou Faye dafa nekk jigéen boo xam ne dafa brave ñu leen di wax ne jigéen baax di nga ni mu sociale ni lii dafa yàgg ci moom si nga liggéey bi jëkkëram da ko cee fekk mu nekk ni ku nangoo liggéey ba muy liggéey Pape Faye takk na ndox mu sedd dama leen di wax nii lu ma fekke la Pape Faye jaay na glace Pape Faye jaay na fataaya Pape Faye lu ne jaay na ko gis nga jom ji lii kër yaaja agro nii ak kër yaaja BTT non dañ ko cee fekk jom ji ma nga jàng ma nga commencé sa manjaxay ga du ko nàmp te ku ne loo nàmp ngay tàqamte te sax damaa dégg mu ne mhm. yaaja BTP mhm. ci la nekk ay at di liggéey mhm. te yaaja BTP xaalisam mu jur yaaja agro waaw mooy ñëw tig mooy bénéfice bi jóge foofu di ñëw ci kër yaaja agro